ngeen jot suñu vidéo nag leen toll leen vidéo boo yi ñëw leen nuyu leen di jiital ci nuyu bi Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye noonu leen ziara mboolem kilifa yi diine ak kilifa aada yi seen mbokkum taalibe la Serigne Saliou Gueye Badar nu ñëwaat nag ci xew-xewi jamono rawat na li nga xam ne am na ci réew mi. nu bokk ci réew mi jamono ju nekk lu koy doxal ak di ko dëgëral nu ciy dox di ci wax jamono ju nekk lépp lu koy delloo ginnaaw ak di ko nasaxal nu ciy aartu ngir bañ mu am dégg nañ waxi président bi léeg-léeg nga di courant la loolu sooy nekku ci ndàngam waaye mënunoo nekk ci réew mi réew mi ñor nu lu bare bare di xew ñu mën cee noppi li ma ko waxee woon rek képp koo xam ne lii xew ci réew mi mi ngi fiy xew nga mën cee noppi maanu ci boo ne bëgg naa réew ma duma ko gëm dégg nañ ay waxam wax ji nag day mel ni ndaw ñi yàgg nañoo wax ak moom ci tele yi ci rajo yi ci dox seeni ñaxtu yu ndaw ndawaan déggu leen ndaw ñi nag fippu def seeni jëfin ngir mu dégg leen message bi nag dégg na ko bu baax a baax boo dégloo wax ji xam ni lum dégg la dina ko jëf du ko jëf nag moom ñi ngi seetaan waaye lu dégg la président kilifa yi diine yii danga ci war a jàngat bu baax a baax. léeg-léeg nga di ñu naan Sénégal réewum jàmm la naam réewum jàmm la waaye jàmm jékki-jékku rek ñëw fi luñ dox la dama wax jamono ju nekk ni jàmm ko fi samp yombut te lu ñuy suuxat la buñ ko suuxatee dafi des buñ ko suuxatul nag day naax saa yi léeg-léeg nga jàmm la waaye ay wu nekk tàkk na fi ci diggante tubaab yeeg ñu ñu fi fekkoon ci diggante mag ñi ci seen biir rayante yeeg nguuru yeeg kopp sa morom doole nangam nangam kilifa yi diine yii ñuy wax tey nag ñoo ñëw waxuma la wéer seen ngànnaay waaye indaale wuñ ngànnaay fexe ba woon niñ ci jàmm fexe ba woon niñ ci respect nii lañuy war a doxalanteeg suñu mbokki jullit nii yeeg nii nangam ba askan woow tey mooy yu ngi fi fekk kilifay diine yooyu nag ñii fi nekk ñoo seeni ndono rawat na ku mel Cheikh Mouhamadou Mountakha wala suñ kilifa yi nekk ca Tiwaawoon ñoo ñëpp ay kilifa lañ yoo xam ni ñooy ñi samp li nga xam ne tamit ñu ñu koy nawee ci adduna bi muy déggu leen Sëriñ Tuubaa fu mu mos a xeexee déggu Alaaji Maalik fu mu mos a xeexee fu mu mos a tam mbooloo mépp leen waaye ni Sëriñ Tuubaa wax rek inni ujaahidu bil ulum wa bi tuqaa ci xam-xam ak ragal yàlla laa jihaatee xam-xam mu bi nga xam def na ko ba fu nekk ab wootam yegg fa ci àdduna waaye ragal yàlla am tax na musta nguuru ci kenn daanaka xalifa Sëriñ Tuubaa sax ñu ko fi wootu doo leen gis ñu bàyyi fi dara soxluñu dara loolu mooy xam-xam ak ragal yàlla loolu nag bu ñu ko fi sampee seen sët nekk fii mu Cheikh mun tax lii war nga cee jàngate bu ëllëgee bu nee la defal li nga def loola léeg-léeg su nga dégg ñu naan Sëriñ Mountakha ñaan na ko nanga waaye Sëriñ Mountakha du ñaan ku dul yàlla moo la ëpp xam-xam moo la gën a dox ci àdduna moo la gën a yeewu moo la gën a jàng moo la gën a jaxasoo mag ñi di sëtu Sëriñ Tuubaa kooku nag bu yàlla bu yàlla dimbalee nga jamonante moom bu nee la defal nangam defal nangam te xam ne ndam nga ci am waaye doo ci amul ngaañ te gis nga ni la respecté ni mu la fonkee te dara warul ko lu dul jàpp na ne yow mi kat la waa réew mi jiital mu war laa respecté war jox sa cër te ku neex a jaxasoo la koo xam ni loo woote mu jël alalam def ca euh, coolu am mu wax waa réew mi ñu dal wax waa ak njabootam ñu dal waaye cooli ni mu ci doxalee tey war ngaa xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha am na lu ko naqari lu mel ni am ci réew mi dégg ko fenn fu mu ci waxee dégg mu wax loo Cheikh Bass Abdou Khadre kon loolu war nga cee jàngat. loolu bind leetar joxe ko ñu wax ci te lam ci wax itam daanaka génn ca Touba nangam ni mu war a taxawee ci yu mel ni dëgg-dëgg ak yërmaande ji ma xam ci moom dangay gis ni am na lu bare bare lu des li ko waral nag mooy fu mu la waxatee defal lii bu dee réew mi la ñor war nga cee euh, war nga koo jëfe noonu beneen li nga ci amaatub jàngat mooy ni Sénégal réew la moo xam ni dañuy bañ tooñ dañuy bañ noot li tax ñu gënu laa topp ànd ak yow ba nga gagné élection yi 2012 li ëpp ci senegal Sénégal ñoo jàppoon ni Abdoulaye Wade dalay noot dalay jaay doole ñu am ci yow ñeewantal jël seen doole. boole ko ba fal la tey lool na war naa tax waroo jàpp sa benn morom moo xam ni war nga ko jaay doole wala doole ji la nga xam ni Sénégal boole nañ ko mu doole joo xam dañ koo boole li ñu wax naan mbooloo mooy doole boole seen doole ngir nga fajal leen seeni soxla fexe ñu am courant fexe ba faju fexe ba nangam nangam nga wëlbati ko jël doole jooju leen ko xeexee ñoom loolu lañuy gis ñu bare bari loolu itam war nga cee bàyyi xel bu baax a baax leneen ci war bàyyi xel itam muy ni mbooloo moo xam ni dañ doon xeex ngir nga falu tey bu ñu demaatem ba di la xeex ngir nga folle ko war nga ci am jàngat bu baax a baax ñi nga gis ñu génnoon de ñoo génnoon ngir nga falu ñoo génnoon itam tey daanaka am na ñu bari yoo xam ne pare woon nañ ngir génne la ci pare boobu pas-pas boobu la ñu baree bare am loolu nag bu am réew eggee foofu ci kilifa war nga ci amaat ab jàngat bu baax a baax mooy suñ borom teral na la teraanga weesuut jox la nguur qul illahumma malikal mulki tuutil mulka man tasha wa tanziu al mulka mimman tasha wa tuizzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir suñ boroom mooy jël nguur di ko jox ku ko waaye mooy nocc nguur itam ci ku ko soob mooy teral ku ko soob waaye mooy toroxal itam ku ko soob teral la nag weesuut lii mu la defal boo téye ci li nga xam ne nguur lañ ko mën a jàppe liggéeyal ci waaye réew mi teraanga la joo xam ne ba say sëdd topp jamono joo xam ne itam muy ko ma nu ko waa réew mi tënkee muy sa nguur jeex na waroo bokkat ci élection yi di ñëw li ab jàngat la boo ci jéem a duggaat itam te fekk ni waroo caa bokk itam dana ko nocci nocc goo xam ne toroxtaange lay àndal waaw sa nguur ku suñ borom jox nguur bu nguur ga jeexee jeex na bu fekkee ne da ko dindi ceew nocc ndax da koy nocc bu ko noccee na nga ci jéem a téye ci dara toroxtaange lay àndal te loolu président yu baree bari ci euh, président yu baree bari ci Afrique gis ngeen niñ ciy doxalee ndax ñoom ñu bëgg nguuru lañ. jàngat nga war ci amaatu jàngat ni sa ndaw yi réew dañoo xiif xiif suut bi problème bi amee li cool yi bari bari ñi ngi dem ci Auchan yi di wut ay saako ceeb di yóbbu seen kër. ñii nga wuti jëb xaalis ngir fay seen luyaas wala fay seeni bor li cool yi métti métti ñi ngi ci gaaw di raaxuwaal di lijjanti lool loolu nag ab jàngat ci ni sa ndawi réew ñii dañoo xiif dañoo ñàkk dégg nañ wax ji nag am na solo lool boo ko jëfee nii nag senegal dinañ la sant dinañ la gërëm boo ko jëfeewut nii nag dinañ gën a mer te merom Sénégal nag nii ma ko gisee nag man tiit naa ci Sénégal ëllëg seen mer fi ñuy jeexalee nag mooy képp koo xam ni am na ci gaañu gaañu yàlla na ko suñu borom yëkkati képp koo xam ni suñ borom dogal na mu ñàkk ci bakkanam suñ borom dolli ay leeram te yërëm ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. a